président léegi nag ñu ñëw ci sa président de la république euh, monsieur Bassirou Diomaye Diakhar fay di xale boo xam ne xale bu ma neex la président la sax léegi dootul xale ndax suñu président la ñun sénégalais yëpp mu nekk yow buñ ko tuddee dangay ngay ree ndax moom nga bëgg ci sa xol Sonko nga bëgg man nag dama ko bëgg man wax dëgg fa yàlla nekkuma woon Diomaye man du ma politique mais nekkuma woon Sonko nekkuma woon Diomaye. li ngay wax nii nag je vais être sérieux parce que c'est un problème sérieux c'est un cas sérieux. Mm-hmm. dama lay déglu et puis euh, naa la tontu tontu yu. waa mais danga wax sànq benn affaire man jomaay dafa ñëw. Mm-hmm. te defe naa li ma dal ci jomaay moo dal sénégalais yépp mm-hmm. man euh, jamonoy Ablaye Wade fàttaliku ma ci lu bari ci Macky Sall laa fàttaliku euh, ak jomaay nii. parce que fukki suma woon trop ci ay affaire président ak yooyu taluma ko woon. ndax jamono jooju maa ngi doon lijjanti man naka la sama life di doxee ba ma sama famille. léegi jomaay ñëw macha allah su sañoon man ki ma bëgg laay bëgg mu dugg palais mais ba jomaay ñëwee non bàyyi ma ma wax ba pare. non xaaral da ngay kii yow entre parenthèse kan nga bëggoon mu dugg pare. ba jomaay ñëwee. ba wax non man ñëwaguma ci loolu ndax loolu ñëwagul. da ngeen di ki nga jomaay dañ koy bàyyi mu doxal yàlla bu yàlla tas yaakaar ci ni ñu ko bëggee. mais bu yàlla tasee yaakaar yi ki ñu bëgg mu dugg pale dina dugg pale. si kattanu yàlla. ki yàlla tudd rek ñi fa war a yeewoo rek. man sax man na man man mën nga fa yeewoo ma yeewoo fa. non man moom bëgguma palais. waaw léegi jomaay ñëw nag man ma bëgg ko ci sama biir xol bii. Mm. ba gëmewuma ko ndax yaram. mais jomaay maa ëpp li may fayeeku. man jomaay li nga ko ëppale man. sama yow xam nga nga sa président loolu lay fayeeku dañ ko génnee. waaw mais ñoom parce que jub non jub jubal lañu wax. jox ma five. waaw jub jubal jubal. mais mais Malick dafa am lu xew. ba jomaay toogee ba léegi moom ak Sonko. yaa ngi dégg. Mm-hmm. Euh, tey jii euh, insécurité ci la ñuy njëkk a ñëw waxuma liggéeyuñ. dañ leen di may temps ñi ngi soog a toog. ok tey mën nañ bañ wàññi ceeb bañ a wàññi diwlin bañ a wàññi mburu. Mm-hmm. parce que mën nañ ne kees gi peut-être fekk nañ fa wala fekk ñu fa dara. non gars yi sàcc nañ la. non mais loolu man. sama yoon nekku si li ma lay wax waa taxawal ma wax danga may déglu lii débat la il faut que ñu def ndànk-ndànk. parce que man li may wax nii li ma ca xam rek laay wax mais loo maîtriser wul doo ca dugg ba ca biir jomaay gis nañ ni ba mu toogee ak léegi mënuñ ko forcer ne ko na ceeb jar juróomi dërëm na mburu jar ñaar dërëm na nit ñi di faju par force parce que yooyu yëpp xaalis moo koy def mais insécurité bi am jomaay la non Sonko la ñun moo ñu jiite insécurité bi am guddi yi Sénégal. insi mais mais rek guddi yi ñu nekk insécurité bi am. Hmm. jéggi na dayoo. loolu te loolu nag kaay ma wax la. Hmm. Euh, ba fi président Macky Sall di nekk. Hmm. demeewul amoon na mais demeewul woon nii. loolu defe naa ni Malick war ngaa xam ni yow armee nga nekkoon war nga xam ni Sénégal war nañu taxaw am nañ matuwaay yu ñu taxawee ba nga xamante ne soit dañuy tëral benn loi bu bees ku rey ñu rey la ku sàcc ñu dagg sa loxo wala ñu kon condamné nit ñi di commencé di di di di raafal raafal bu méttee métti ñu bàyyi nit ñi ñuy rey ak accident yi kuy dawal di nelaw mbëkk bus ña fa nekkoon dee ak géej yi nga xam ne dafa war a am ay euh, homme de tenue yi nekk ci géej ñu mu marine nationale ñooñu nekk ci géej gi nga xam ne gaal buy traversé war nañ contrôler gaal gi ndax day nappi jox ko limite ci biir géej gi ba suñuy doomi réew dootuñ traversé ndox mi di dee Mali loolu ñëw ci. ok insécurité bi am Sénégal. Mhm. commencé wul ci euh, Diomaye wala Sonko affaire yooyu wala nguur gu bees bi comprendre nga. Mhm. te da wax léegi nga ne temps yi fii président Macky nekkee nii nii nii nii. kaay ma wax la rien n'est plus pur que euh, kii nu ñu koy waxee temps mu Macky Sall que yaa ngi comprendre. Mm-hmm. ans yi Macky Sall nekk président du Sénégal ah ci lépp nag du ma fi nekk di la limal in general ah, lépp négatif la xam nga Sénégal ngay toog ministre dem di inauguré ay tali. président notre président sax président Macky Sall. Mm-hmm. wala keneen di dem di organ di di di di euh, di inauguré ay tali. Mhm. comprendre ay pont comprendre li ma la wax. Mhm. ah Sénégal Afrique rek ngay gis loolu ministre dem wala président de la république di émigré ay yëfu dof comprendre nga li ma la. bu ngeen ko fi defee di ngeen ko fi durée defagu leen ko de yéen a ngi soog a toog bul waxagum loolu. dama la loolu wax comme ñoom sax ñu xam ko comme que ñoom ah. mhm. ñii ñii ñii am nañu leen lu ñu tàll lu dem di émigré ay pont wala ay ay ay ay ay ay ay centre de formation yu ñu tabax. Mhm. wala ay juma wala ay kii ay affaire yooyu. Mhm. ñoom tal nañu leneen ñu dem di inauguré def yooyu. gis nga kaay wax la te xam lu ma gën a jaaxal ci Afrique. Mhm. dañuy toog di def seen ay débat koo ci wax mu ne li xew États-Unis te walaay dëkk xamul États-Unis dara Sénégal la toog. surtout gars yi di toog ci plateau yi Sénégal koo ci wax mu jël exemple Amérique. koo ci wax mu jël exemple France xam nga lu ñu fa am. Mm. xëy na thème. Euh, tapote leen live bi am na solo de. thème live bi am na solo torop torop. tapote leen ko benn cinq jours benn dix jours wala benn un mm-hmm. mois. Mm-hmm. delluwaat yow kooku da mën a xam système dëkk boobu nu mu tëddee. Mm-hmm. da dem sa dëkk di jox exemple Amina. Sénégal dafa am ñu yorwaan ci mbedd bi. gouvernement dina ci xeex. mais luñ ci mën a du bëri. amerique fii dafa am ay homeless. Mm-hmm. foo fekk fu nekk am na fa ñu ngi tëdd ci mbedd bi defaraan ci mbedd bi mm-hmm. dañ lay naan Afrique bu tawee léegi taa na ndox baa ngi fii ndox bi mm-hmm. demul nii Amérique fii am na fuy taa New York chaque moo gën a metti que xam nga lu moo gën a metti kër yi di suux Chine tali bu am pax ñuy kaas di wax Amérique fii am na tali yu am pax xam nga lu wax biir fi ñu dëkk nii bronze bii nii doo fi daw benn deux minutes fekk daloo ci pax wala daloo ci lenn dafa am mais nag ni mu mënta demee ñoom dañuy defar. Mhm. mais ñun suñu dëkk yi. Mhm. li ñu war a defaree gars yi dañ koy sàcc gis nga loolu noonu. Mhm. mooy indi insécurité. parce que ñi nga xamante ne tey bu ñu nekkoon normal. am fu ñu jàpp. duñ dem sàcc ji. duñ dem du yoxosu ji duñ dem du dajj ji. amul la waaw te man ñooñu sax man dama bëgg ñu leen di yërëm ñu naan sàcc yi ndaw noonu ñoom noonu ah. ñooñu dañ la wëree xam nga ñan ñooy sàcc yi. ñi nga xam ne leen di teg fenn. Euh, demal demal leen alalu mbooloo. Mhm. ñu war ci taxawu mbooloo mi. Mhm. ah ñu sàcc ko. Mhm. yaa ngi la insécurité door a commencé leneen nag quant à ay bandits ay fépp am insécurité Amérique nekk nga gis tale rey nañu fii nit fetal nañu fii nit rey nañu fii nit farat nañu la te Amérique moo ëpp sécurité Sénégal. xam nga. waaw. cent million de fois bokkuñu sax. comprendre loolu dafa tax crime du fi am. crime daf fi am robbery dafay am lépp dafay am fii gis nga am na yi nga xam ne ah nit yi ñoo war a comprendre que population bi ñoo ci war a jouer est-ce que xam nga fii bu ñu gisee nit def dara wala affaire dañ lay yoole dañ lay boole eh dañ lay boole est comprendre la système boobu la war a dalal Sénégal mais insécurité fépp la am ci àddina bi fépp comprendre nga li la waaw ah. ok Malick ñu gis ni sa euh, président euh, monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye euh, ba mu toogee ak léegi mi ngi jël euh, ay weer defe naa mi ngi ci six sept mois euh, te seen gouvernement bi commencé gu leen dara tegagu leen dara ci suñu loxo mm-hmm. mënaguñ jàmbat ne dafa metti parce que àddina li nga wax fépp metti tey amerique mburu Sénégal la gën a yombee Amérique mburu Sénégal la gën a yombee Europe fu ne ci àddina kon ñiy kaas dund gu cher dañoo tukkiwul euh, ba mën a xam parce que nag euh, xaalis yi bokkul naam parce que won dala euh, doo ko jariñoo Sénégal ah. te ñun Sénégal cent franc dañ koy utiliser ñun suñu xaalis la ñoo ko moom dañ ko fonk fukki dërëm te fii won dala bi defe naa mi ngi ci six cent et quelque mm-hmm. cinq cent quatre vingt te fii defuñu ko xaalis kon dëkkuwaay yi moo nekkul benn ñu bëgg xam fi mu nekk nii euh, euh, moom Jomaay dafa yoone xaalis bi. donc kii sa booy bi laa yónnee xaalis bi Babacar. d'accord euh, léegi ñu bëgg a xam Jomaay fan la jëm ak Sénégal man ci sama gis-gis sama xalaat laay wax parce que souvent Sénégal da ngay gis nit ñi wax seen xalaat Malick ñu di leen traite di leen wax lu lu ne te ku ne am nga pour wax sa xalaat te doo dépassé mm. man dama yaakaar ni. Euh, nguuru euh, Sénégal guddi yi ñu toll euh, votel nañ leen ba jox leen réew mi mais est-ce que am nañ yéene liggéey bëgg nañ seen réew dañoo xeex ba jot ci réew mi pour defar ko mais est-ce que attan nañ Sénégal pour yóbbu Sénégal ñoom fañ ko bëgg a yóbbu je pense que amuñ expérience bi je pense laa wax ci sama yaakaar amuñ connaissance bi parewuñ daal man sama xalaat. lan lan mooy expérience. lan lu tax nga utiliser la mot expérience. la moo expérience mooy euh, man dama foog ni que euh, ki fi juge ah. ak lu mu bon bon bon bon bon. Ah. Euh, xamoon na. Ah. fi mu jëmee Sénégal. ki fi juge lu mu bon bon bon amoon na ay partenariat yoo xamante ne nii. mën nañ ñu jàppale ba Sénégal dem parce que Sénégal ñun ñunu neen. mënuñu ko euh, gérer ba mu jëm ca kanam. parce que avant ngeen a jël réew mi Malick bul fàtte ne yéen da ngeen doon taal Auchan. mais Malick mais yéen man politique ko mais yow. Ah. Sonko nga. parce que maa ngi chaque jour ñu rayante ci kër gi. waaw ah. bëggoo laal Sonko. Ah. mais Malick bul fàtte ne yéen avant ngeen a jël réew mi. Hmm. comme Sonko nga da ngeen doon taal Auchan. Hmm. insécurité bi amoon période élection yi kenn xamul nu mu toll. da ngeen doon wax France dégage. sénégalais mais même ma wax. xaar sénégalais non xaar mais Malick man soo ma mayul ma wax. dégg ma tontu Amadou Ba. Malick yi ngay wax ni man waxuma ko da nekk di ruube te man dëgg ci dëgg laa nekk. li ma liir li ma xam laa wax. Ah. avant ngeen di jël réew mi yéen da ngeen doon wax France dégage. Ah. taal estation Total. taal Auchan lu francais yi am ngeen yàq ko. te tey gis naa sa président ak Macron loolu lan la man dama fagoon ni yéen bu ngeen xasee ba jël réew mi lu jege France du ngeen ko laal du ngeen ko jege. mais ma gis seen euh, digganteeg euh, France ni mu rataxee ba léegi France 24 boo ko jàppee sa président la ñuy teg chaque jour ci France 24. waaw léegi mais dama bëgg xam kon ba ngeen naan France dégage. on a le président xanaa nekkul woon loo xamante xaw ma ñeneen ñaar defe naa ne waaw je crois wóoruma euh, ñeneen ñi les coups d'état wala ces militaires qui sont au pouvoir boole. man xaw ma de damay laajte rek. parce que on a le président boo xamante ni élection dafa rafet euh, ngi dégg nekk président euh, kaay ma wax la gouvernement Macky Sall moom. Mhm. su ma leen doon net noté du dem ay cent wala damay naan vingt bu ne note bi vingt la. Mhm. zéro laa di jox sur ok comprendre nga li ma la wax. Mm-hmm. puisque ñooñu lu yàqu Sénégal ñoo ko fa yàq. Mm-hmm. yaa ngi dégg. Mm-hmm. Euh, affaire Adji ñoom la. seen ay la. yaa ngi dégg ah ak yeneen ak yeneen affaire Adji Sarr moo gën a marqué Sénégalais yi xam nga. est xam nga affaire Adji moo def tey Sonko li mu doon. waaw macha allah. waaw man bu nit ñi di wax Adji Sarr Sonko d'accord ma Sonko il était sur la bonne voie balaa Adji Sarr. xam nga nit ñi xam dara amu ci. Ah. mais dama la bëgg wax ne ne nit ki toujours ci problème bi muy jaar ba àddina bàyyi ko xel. Hmm. parce que Sénégal dañuy xeex injustice. Ah. duñ nangu ku toroxal nit ba ku tooñ nit ba pare toroxal ko. Ah. kon su ma nee la affaire u moo def Sonko tey li mu doon. waaw loolu d'accord ma ci loolu. ok ñëwal ci li nga d'accord. Euh, Sonko li mu nekk yàlla ko def. Sonko popularité bu mu populaire yàlla moo ko def yàlla moo ko dugal ci xolu jaam yi. Mm-hmm. nit mun ci dara yaa ngi dégg li mu wax moom moo joxoñ président Diomaye Diomaye nekk président. Mm-hmm. te dégg lu mu wax dafa toog xool xool ba mu neex ko bu seppi ki mu wóolu. Mm-hmm. Sonko Diomaye Diomaye mooy Sonko. loolu moom mi ngi déranger ñu bëri waa Macky yi. mais nañ toog te muñ ñu xam ne lenn xoolal gis man su ma doon su nekkoon ministre euh, kii ci gouvernement Sonko bi nii wala Diomaye. ma nekk kenn ci ñoom ñaar place am. Mhm. wala président de la république. day mhm. décider. Mhm. du xaar xam nga tas assemblée bi moom ñëpp ci kontaan. cent pour cent. du nekkoon Diomaye. assemblée bi du ma fi sax nekk di jax ba ñoom ndeysaan dañoo. ay sénégalais lañ mënuñ tëb tëb def ko il faut ñi ñii dañuy jaar sur la voie normale. dëgg la ñii ñëw ñu pour jalgati. est ce que xam nga la mais su leen neexoon ñu def li Macky Sall def. ñëw mm-hmm. tas affaire yi xam nga. Mm-hmm. ut fii dugg na fi génne léegi nag kaay ma ko nga gars yi Macky yi ku nekk mi ngi jooy li ñuy def jaay la. Mm-hmm. ak dama lay expliquer benn affaire. xoolal fonctionnaire. dama lay wax euh, xoolal militaire par exemple. militaire nga def trente deux ans d'armée quarante ans xam lan. Ah? nga commencé soldat de première classe. caporal. caporal chef. sergent. sergent chef. Mm-hmm. adjudant mm-hmm. adjudant chef boo jàllee major xëy na wala affaire yooyu sous mm-hmm. lieutenant lieutenant plan nga nekk capitaine comprendre nga nekk commandant nga nekk lieutenant colonel colonel plan général général brigade ainsi de suite ainsi de moom dégg ko ma ko Sénégal xam nga ma ne la <coughs> ñooñu xanaa ñu bëgguñu dara li ma leen xoolal durée bi ngay def ci grade rek boo nekkee soldat deuxième classe ñu rengagé la ah? ñu engagé la nga xaar hiérarchie bi mu continuer mhm. ba nga def sa siaterna mhm. xam nga nga nekk caporal mhm. caporal chef nomination la xam nga nga dem uti CAT 2 pour nekk sergent nga wuti CAT euh, CIA nga wuti B1 B2 pour nekk adjudant adjudant chef affaire mais temps boobu rek mën na quinze ans wala vingt ans mënoo ci am milliard ci am kër bu baax gars yi ku ci demul mission doo am kër ku génnul dem mission je te dem mission sax boo ñaatee doo am kër yaa ngi dégg kenn ñu fal la tey un ministre. comprendre nga ah. nga sàcc. comprendre nga. c' des voleurs. gis nga Sénégal ñi fi càll càll yëpp ay sàcc lañ. Mm-hmm. man maa la ko wax man. gis ñu tedd comme ñu nii mm-hmm. tukki yàlla teral la. Mm-hmm. ah ñu ñoo war a yëkkati suñu loxo parce que li ñu am ñoo ko moom kenn dégg ci dara. mais ces gens yi nga xam ne ils ont été nommés ah ñu sàcc. comprendre nga li amul lu ñu leen war a woowee des voleurs des criminels. comprendre nga gis nga xoolal interdiction de territoire nii nii dafa dafa dafa dafa dafa kii nu dafa dafa kii quoi dañ dañ leen warmaal mhm. mais ñii xoolal dañ leen waroon technique comme li Sonko waxoon bu njëkk mhm. ñu fusiller leen non non xam nga ñii ah man je te jure man su man la ah su doon man damay def ni jong euh, kin jong di def rek Corée mhm. yaa ngi dégg gis nga ñii ah c'est des criminels gis nga nit boo mënee dégg naa fa yi maa ngi koy gis ci internet ñu naan am na benn ex ministre Macky Sall bu sàcc bu delloo ko boo xoolee sax boo xoolee. Mhm. comprendre mhm. euh, mhm. damay damay damay damay topp politique bi Sénégal bu baax sax xam nga ci dara. boo xoolee comme benn ex ministre ay Cheikh Oumar Anne ku nekkoon université. di jëndee ay poobar. ay kilo quatre cent mille poobar. yaa ngi dégg kooku on doit le foutre dañ ko war a tëj. dañu war nokk ci kaso bi yaa ngi dégg boo xoolee ay awa kuddu njaay est-ce que compris mm-hmm. waaw ñooñu ñëpp ces gens là mm-hmm. yaa ngi dégg gis nga Sénégal nguuru Macky Sall amul gens amul bon ba ci ay Samuel Sarr may dégg nii ay milliards dañuy fi mu jëlee milliards ah fan lañ ko jëlee man damay wax tur parce que ragaluma comprendre nga li ma la tooñ baaxul. non man tooñu ma dama man dama ñeme li wax mun ci man dara mm-hmm. man xoolal décret faluma yaa ngi dégg. kenn du ma defal kii xamu nañu nga xam dina jóge ci 3 3 3 am na ñu tuddee. Mhm. yaa ngi kenn du ma ko defal. xam nga ñii ñëpp on doit les traduire devant la justice ñu gopp li sàcc. Mhm. parce que c' est des voleurs ba pare ay nit yoo xam ne xoolal nekkoon nañ fi di sàcc di fen di wuruj ah mhm. tey ñooy toog ci plateau yi. ay débat di tànqal sénégalais yi. Ah, di wax di dund si le dos des sénégalais. ñoom ñu tey di wax ah bi nekkee di rey nit ñi ñoom fu ñu nekkoon. ah. Mm-hmm. ñu ngi woon ci nguuru Macky Sall seen affaire di dox. Mm-hmm. ils n'ont pas pu ouvrir la gueule. léegi nag ils nous amèrent. comprendre nga li mu wax. Mm-hmm. di ñu wax ay naan président tas na assemblée président def na lii ñu ngi wax ci clandestin ñoom bu ñu fi nekkee clandestin amul woon. ñoom bu ñu fi nekkee criminalité amul woon. lépp am ah plus dangereux. ba pare ñu boole ci sàcc bu metti xoolal coronavirus coronavirus ah ñu dem. jox Mansour Faye xaalis Mansour Faye sàcc ko Mansour Faye man je suis de Saint-Louis Bango foofu sama dëkkaale la mais Mansour Faye. ah balaa Macky Sall non damay tudd di nekk président Mansour Faye du dara xam nga lu doon ay dawal oto ay kii horaire Dakar Saint-Louis. ak ay jaay géej gi. Mansour Faye tey xam nga mu demee Bango. Mm-hmm. ah dafa dem ba boolu ranch ba. Mm-hmm. xaw ma nu mu def ba am foofu fàq fu ko neex. Mm-hmm. dëkk fa xamula te man mi nga xam ne j'ai grandi foofu laa màggee. ah Mansour Faye musu fa woon am tey boo demee Mansour dafa fàq lu ko neex. Mhm. clôturer ko. Mhm. est-ce que comprendre la. Mhm. Mansour Faye fu mu taj bu doon Macky Sall Mansour Faye lan la mën a tekki Sénégal dara sàcc la est-ce que xam la. dañ ko war a noq ci kaso bi. comprendre nga boo waxee ñoom ñooy toog di wax non xaaral. c'est ñaata frère jàpp ñu ko fi. ñaata yoon lañ ko yóbbu. ñaata yoon lañ leen yóbbu c'est criminel la ñii dañ leen war a traiter xam nga de ce qu'ils sont. que comprendre tekkiwuñu dara amuñu yërmande duñu ay erreur man li may def Bango Mansour Faye ngi nii c'est le maire de la ville ex ministre. Mm-hmm. Bango foofu fi ñu dëkk ñoo dëkkandoo defu ko defu ko fa. Mm-hmm. c'est le maire dimbalewu fa nit gisuma ko bokk joxewu fa nit dégguma ko ci dëj dégguma ko ci dara te man lu nekk laa leen dimbale man du ma ministre. Mm-hmm. Sonko fayuma Diomaye fayuma Macky Sall faluma keneen faluma te man maa ngi dimbale sama waa dëkk. li ma mën maa ngi koy def mais ñoom xam ni gis nga nit mm-hmm. lenn nga am ñu fal la mm-hmm. ah mm-hmm. ñi nga xamante ne dañuy nekk di sàcc est-ce xam la ci ay nguur yow dañ la dox dañ la dénk nguur au lieu nga doxal ngay nguuru xam la ñii ñoo fi nekk tey di ñu tympaniser wala ñi nga xam ne xoolal nguur bu ñëw ñu nekk ay dëmm est xam la topp leen yaa ngi dégg di am lu ñu seeñi ñoom xoolal nguur bu ñëw ñuy menacer waate comprendre nga di di chantage am na ci ñoo xam ne la lañ def Sénégal. nguur bu ñëw ñu genre seen Moussa Moussa Dieng ah ko jànguñu xamuñu xamaanuñu ah toog seen benn rukk tey ñu ànd ak yow. wala ñu menacé état bi toog buñ la menacé bu la menacé ah nga woo leen ci rukk ñu ne ñii nag xoolal ragaluñu xam nañu fu ñu jëm xam nañu fu ñu jógee xam na xam nañu fu ñu jëmee. est-ce que yaa gis nga ñii. Mhm. man xoolal ci ñoom laa commencé voter. bu ñu bàyyi woon politique tey ma bàyyi politique parce man sama nekk ci. Mhm. sama carte du dem di perte sama temps mhm. sama benn trente minutes may dox ci place vote di vote. Mhm. Sonko laa koy defal. su dul moom duma ko defal doomu aadama ci kaw suuf. parce que jaraluñ ma ko saa yi xam nga ñu leen bëgg. yow est amul looy xaar ci Sonko nag franchement. parce que nii nga sonnee ci ñebe man maa ngi baax. man li may fay. nga ne yow yaa ngi. maa ngi baax <laughs> balaa ñoom ñuy falu eh man maa daan jël sama alal xoolal eh wuy mm-hmm. ma. man lool xam naa soxlawul di wax fii. waaw mi ngi noonu kon nag jeex na kon loolu dama koy. gis naa bari yoo xamante ne nii euh, da nga ko daan def. dañ ko daan def ba ci Pape Alé euh, ba mu def grève de faim ñu jàpp ko chaque jour xaw ma daana ci jot nag wala jotu ci leeru parce que souvent nga yóbbante nit te yóbbante ba borom du ci jot. Eh. yooyu yëpp xam nañ ko mais soxlawul souligner avancé non loolu lay demee. léegi yow Malick est-ce que xaaroo benn déception. Euh, parce que xaaral 2012 lañ faloon Macky Sall. Euh, ñi ko faloon am na ci ñoo xam ne doyaluñ ñi jege Macky mais am na ci ñoo xamante ne nii am nañ déception peut-être ndax man xaw ma ci politique lu bari. Ah. damay cuq débat bi rek bàyyi la nga nga nga continuer. Ah. ndax loo xamul doo ci xuus ba sës. Ah. est-ce que ni nit ñi amee déception tey ci Macky Sall ba jëlee ko fi. teg fi euh, euh, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. yaakaaroo ne bés dana ñëw nga am déception ci ñoom Malick. ñii du am ci ñoom déception parce que gis nga ñii dañoo falu falu bu leer nañu. ba mhm. pare. Uh-huh. balaa ñuy falu ñu teg leen loo xamante ni mooy Sonko sax lañ ko teg. mais nit ñaa ngi naan nag Macky leen jox pouvoir bi de. Macky joxu leen benn pouvoir c'est pas vrai. mais kon li nit ñi di wax du dëgg nee nañ Sonko Macky jox na ko dix milliards. du dëgg Sonko du laal milliard Macky Sall. la Sonko bu doon xam milliard mu mm-hmm. xam nga fu mu nekkoon impôt et mm-hmm. bon sénégalais. Mm-hmm. sénégalais dafa mën a sos. xam nga la baax bu fekkee ni yow. xam nga lenn lu wóor ci nit. ñëwal nga génne ko. Mhm. nga teg ko ci kaw table bi. mais loolu secret la bu fekkoon am na tamit. parce que nee nañ Macky Sall ci prison bi la joxee son Sonko ay milliards. ba pare euh, jox ko jox ko kii bi. du dëgg c'est pas vrai du benn dëgg. Hmm. nga jàpp ni ñoom ay carte leen yu ëpp Macky Sall hmm. yaa ngi dégg. Hmm. wala mu jox doomam Amadou Sall. ñooñu comprendre la. wala ay mbokkam. mais ñii fekk ñu milliards. yoruñu milliard. Mhm. boo xam ne dañ ko jël. Mhm. wala dañ ko fekk ñu tegal leen ko foofu. Mhm. gis nga ñii fi nekkoon foofu Sénégal bi ñu dem dañu raxas lépp. ba pare nag léegi ñu xam ne ñii fal nañ leen ñu ngi bëgg liggéey di jubbante réew mi. ñu nekk ay assemblée nationale di ñu amerde xam nga ah ay naan dañuy def ay xaw ma lan censurer ay gouvernement ay kenn xamul. boo seetee ndeysaan gaan bu ndaw boobu. tuuti kooku rek xam nga. bàyyi tooñ yaa xam ah, ne tuuti kan la Abdou Mbaw. xam waaw defe naa. bàyyi tooñ. toog bàyyi kooku sama càmmiñ la de Malick. kooku moom sama te ba pare macha allah. Ah, xam nga député boo xamante ne la yàgg na Sénégal bi nekk fii ci dëkk bi Amérique. ah di ruubee. non mais mais Macky sàll lañ. Malick am nañ droit def lu leen neex. am nañ droit def lu leen neex. parce que Macky non yow yaa ngi nii ku laal Sonko nga saaga ko. ñoom tamit am nañ droit seen leader ku ko laal ñu wax ci. non bokkul. waaw kaay gis nga ñooñu waruñu nekk ku wax Macky Sall mun ñu wax la dara parce que xam nga. yow ah, ah. war a tas euh, assemblée nationale. parce que assemblée bi nii. assemblée mais nañ ñu wax lan moo tax lan mooy raison ñu war a tas assemblée bi. assemblée bi nii. Mhm. assemblée boo xam ni ay saagante. Mhm. ah. Mhm. ay ay ay nit yoo xam ni amuñu benn savoir xam amuñu xam-xam. Mhm. jànguñu xamuñu dara. Mhm. Ah? Mhm. ay Macky Sall jël leen dajale leen foofu am na benn paa boo xam ni xaw ma nan njaay bu gàtt nii. mu mun a wax. xaw ma leen dafa gàtt. paa boobu xam fàtt naa turam sax. bindal leen ma turu paa bi. ko ko gàtt nii. Euh, dafa mën na wax boo waxee muy naan ñaañaañaa wala ay Farba Ngom nga xam ne ay sàcc lañ. non bàyyi Farba Ngom jabaram sama yaay la man dama la jënd fa Farba non Malick bàyyi jàmbur ko dara Farba ko mi ko mi mbii maami afaa ko mbiirmaami Farba ko gucc man maa la wax loolu sàcc la Farba Ngom c'est un voleur Farba Ngom il est indiscipliné Farba Ngom moo gën a réew ah Malick Naar yow xam nga lan la yow sànq taxaw nga fi ne bëggoo kuy nekk si internet di la wax lu la metti mën nga wax sa débat mais pas nga dépassé politiciens yi ñoom koo ci wax mais politiciens yi am def débat bi mais pas ñu samay def lii wala moo non loolu d'accord la mais ñoom ay politiciens lañ ci ah. politique Malick yow euh, sa leader politicien la non sa leader sa sa président ah. ku ne ci euh, xawma lan doo retaan ku lap yéen a ngi soog a tàmbali ci kaw. parce que moom il est bien éduqué dañ ko yar. nekk na député ba jóge fa. parce que Ousmane Sonko dañ ko yar. mais Farba Ngom kan la a saaga. Farba Ngom di wax lu ko neex. non mais mais Malick loolu sa yoon nañ ah, ah, ah, teg débat bi ci yoon. ma nekkoon assemblée xoolal kaay ma wax la. non Malick. ñu nekk assemblée maag yow ngay rubé damay jóge fi may jëm ñëw wàccee la mais noonu kon yow yaa leen gën a doy waar. waaw mais parce que dañu réew. non yow yaa leen gën a doy waar lan lañ fa soxla. non parce que yow déjà. comportement a tooñ sëñ Abdou Bara Dolly boo a tooñ sëñ Abdou Bara Dolly. mais sëñ Abdou Bara Dolly yaay sax dañ koy naan bëgg dugg fii loolu dafa bëgg a bëddee mais xoola gisoo keroog. Mhm. yi muy def yëpp ay move yu baax la parce que xoola. Mhm. yi dañu indi livre blanc Macky Sall mhm. mu def leen mu indi leen beneen contradiction ni leen livre rouge laa indi xam nga yi dañuy xalaat ni moom jàngul. Mhm. xamul dara. Mhm. mais xoolal. mais affaire bi politique du ci jàng. nit koo xam ni xoolal dafa xam fu muy teg tànk. mais yéen assemble yéen man dama yaakaar ni dangeen ko tas parce que dafa am lu ngeen di daw man dama jàpp ni ragal a tax ngeen tas ko. <coughs> ci sama xalaat parce que lépp fa lay jollee. dëgg la euh, euh, affaire yi c'est c'est c'est c'est exagéré xuloo yi saagante yi ci assemblée loolu dafa ñaaw c'est honte mais dama jàpp tamit li tax ñu koy tas dootul bruit boobu dong dafa am lu ngeen di daw da ngeen ragal wala parce que waroon nañ ko mën a organiser mais duñ ko tas parce que ñu fa daje ñëpp ñu xamante lañ ay politiciens. ñoo xam ne ay ñooñu sonko xam nañ leen bu baax. ñoom it ñu xam sonko bu soo ay ñooñu. du loolu mooy bitu assemblée nationale. léegi lan mooy bit bi. assemblée ñi fa nekk c'est des élus du c'est des gens yi nga xam ne soo sont élus comme ay président ay affaire yooyu mais problème bi mooy. Mhm. ñu nekk assemblée nekk luñ fa askan bi ay député Macky Sall lañu. moom mhm. comprendre nga. Mhm. ñun xëy na yàlla dina def assemblée yi di ñëw. ñu wax lii mooy assemblée nationale. gis nga assemblée bu ñu fa tegee da nga fa war a nekkal sa askan. mais assemblée boo xam ne man Macky Sall moomu fal lu ko neex laay def lu ko neex laay wax. comprendre nga lim la. wax ma benn nit bu nekk APR boo xam ni. Mhm. Ah, ci gouvernement Macky Sall bi ku nekk député Macky Sall. Mhm. mës na indi benn débat bu sérieux assemblée amul. Mhm. kenn ci ñoom commencé ko ci président assemblée nationale président assemblée bi nga gis xoolal ñu indi fa ay nit ci kii bi passé mu génnee leen temps Macky Sall mosu def wala ñu toog di yooxu nit ñi. di wax lu leen neex mosu ko def comprendre la moom sax moom du du moom moom du président sax parce que moom ay gendarmerie ñoo ko indi fal ko teg ko force. comprendre nga wax assemblée bi daal Amina boo bëggee dégg-dégg. du woon mhm. assemblée yàlla dimbali nañ tas nañ ko xam nga. ñi fa nekkoon assemblée tubaab yi sax li nekk. non d' accord mais du bi am Sénégal moom c' est autre chose. Ah non déedéet déedéet langue yi moo bokk. mais tubaab yi dañuy xeex mais dañuy defal assemblée boo dem ci àddina dugg leen ci assemblée par internet. am na coow assemblée boo dem am na yow eh. li xew Sénégal lu ko raw moo xew ci Europe beeg Amérique dañuy jël seen classeurs yi di ko dóorante. d'accord dañuy xuloo dañuy xeex c'est que ñun suñu euh, langue moo suñu olof bi moo xaw a metti ndax ñun dafa am ay maa doo dootoo ko fi defak sa sa sa sa bleu bu e safak sa sa mascara bu tuuru tubaab yi nag xëy na dañ koy làkk ñoom na mu leen neexee mais assemblée lii moo fa mës a am dañuy réeroo après ñu juboo ñu wut solution. mais man pour man bu ngeen tëbee tëb tas ko dina bëri askan wi loo xam ne dina leen ump ci ci ci ci ci Sénégal. non temporaire la dañuy def élection léegi euh, affaire yu changé. élection yi di ñëw nii nga xool parce que ñii waa gars yi bu ñu leen tasul woon. Mhm. dañu bañ dañ leen laaj nañu tas ay organisation yu mel ni comme ay CCC xamu nu mu tudd affaire taf yooyu fii Abdoulaye Diallo Diallo nekk fii fii Aminata Mbengue Ndiaye nekk fa maire Aminata Mbengue Ndiaye. kooku war na bàyyi politique mu juddoo la. politique soo yoon ci yow yaa ngi ni bàyyi ko émigré. j'ai rien compris ci politique. mais dama koy cuq rek pour débat bi neex. Euh, man Sénégal laa bëgg Sénégal laa am. nee naa leen Jomaay ba muy euh, euh, déposer candidature am man je suis pas Jomaay politique gu ma nag musuma sànni carte mais ba Jomaay taxawee nee naa la ba Jomaay waatee. ba jàkkaarloog ay soxnaam man dama jooy sama jëkkër a ngi nii toog dama jooy jomaay dafa dugg sama biir xol dama ko bëgg ba pare barki démb première dame ba mu demee Chine sama yaram dafa daw ku soñoon euh, mu nekk sa mag wala mu nekk sa xarit wala dara première dame boo xam ne da ngay suus ay kër yow Malick nga lan la Malick yow waa <coughs> waaw bàyyi kooku vraie sénégalaise la ku ci nekk ak sa rythme xam nga lan la kooku euh, moom elle bien éduqué nit kuñ yar la. musul def de xoolal musul def débat musul def euh, détail musul def dara. xam nga lan la def dafa jaxasoog sénégalais yi xamaloo ko dara. man dama ko xamaloo ko dara. éducation yi bokkul moom dañ ko yar mu dugg ci biir askan wi. kan lañ yar mais euh, sa première dame bu njëkk daf fi mës a def dara. man musul nekk sa sama première dame. waaye Malick ndax nit nga. nit laa kay. kon 2012 ku nekkoon sa première dame. aw ma aw ma première dame aw woon président. kon xanaa jabaru euh, Trump 2012 moo nekkoon. sa première dame Trump première dame ak jabaram euh, Trump moo doon soo euh, président président jabar ji moo doon sama. first lady first d'accord am nga si plein droit. léegi maa ngi door a am. première dame président. bu nekk Bassirou Diomaye Faye. macha allah jeune président charisme xam nga. Mhm. Ah, ay ay ay yenn dof yi naan bu solee costume am lu mu wax quoi ay gars yoo xam ne dañuy toog si plateau yi. affaire bi du ci costume affaire moom xoolal jomaay moom il est correct. mention spéciale yaru na ba pare. laa biir ba pare macha allah baax mais mais mais nit ñi nee nañ euh, euh, xelu Sonko la jomaay di demee sa président bi. Ah. est-ce que euh, loolu mën na nekk. ñi koy wax yëpp c'est des gens de Macky Sall wala ay yeneen petits policiers xam nga Sénégal dafa bëri ay petits politiciens. Mm-hmm. xam nga dafa am ay politiciens xoolal nii Sénégal catégorie bi nii la xoolal. dafa am ay. mais mais que Diomaye dafa réagir très rapidement bi. wane boppam Sénégal dafa am tri ex. Mhm. tri ex politicien. Mhm. mooy tri ex bi moom kenn la mooy Sonko. mooy mhm. Sonko mooy Messi Sénégal. comprendre bu dee football la. moom mooy Messi. bu dee basket bi la moom mooy King James. Mhm. comprendre nga li ma la wax waaw euh, ñeneen nag les petits politiciens là qui ne mhm. font que parler mhm. wax rek la ñuy def lu nekk ñu daw jiit foofu xaw ma dañuy yore seen ay télé di ko xeexee ak seen rajo sonal nit ñi tànqal nit ñi gis nga nit boo bëggee def dara da ngay dem fi nga dëkk nga commencé foofu nga ut base politique ba pare gis nga politique da nga koy jàng da koy mën saa waaye loolu la leen Sonko mënee dañu ni tàkk maire ñëw fekk nekkoon na député ñeneen ñi mu dem Casamance bu mu jógee. Mhm. dooru leen de daf leen dër xam nga dër xam nga booy defar ndaara je me rappelle tant xale sama yaay buy defar tigi dege butéel la daan jël. ak ba ba ko def nii waaw. soo ko noonu la def gars yi waaw. xam nga. Mhm. gars yi nii nii. da leen a dëbb. waaye da fépp dëbb ba ñu mokk rumbax. Mhm. te des na xam nga léegi dëbb na leen ba ñu mokk. léegi tame leen xoolal tame bi moo des ci député yi di ñëw ah. séparé sànqal bi ak cox bi. macha allah cox bi ñu jox ko xar ñun ñu jëfandikoo ak ñun sénégalais yi. nga xam ne soxla nañu. mais sa gars ñoom wax dëgg fa yàlla soxla wuñu leen hmm. def benn conférence de presse ci euh, siège APR. Hmm. dañu doon jooy noonu rek seen métit seen dernière seen dernières heures. Hmm. dañu doon jooy noonu. comprendre nga li ma la wax. yéen vous avez été douze ans lépp di xew Sénégal ngeen nekk fii léegi xoolal bu élection député yi commencé xam nga lu ñu nekk di wax lu seen ñu waxoon defuñu si dara. dañu waxoon dañuy wàññi dund bi te lépp lu ñu wax boobu léegi ñu ngi koy def. mais li ñuy wax rek gis nga jour yi di ñëw bu sabar yi yëngoo dinañ tal leneen loolu dinañ tal fecc te dem te di nelaw. ayca mi ngi noonu euh, euh, dañ doon euh, dañ doon. cof tuuti rek ci débat politique doon euh, xool euh, comme moom euh, ci politique lay dox politique lay dundu ruube naa ko ku ne xam na ne Diomaye Diakhar Faye. amul kenn mais ba pour cent là-dessus. Mhm. New York moom. Mhm. New York fii. Mhm. xam nga président Diomaye ak Sonko xam lu ñuy xaar ñoom tamit. pour changer ambassade yeeg consulier yooyu yëpp. dégg naa. dindi nañu waa Macky Sall yi def nañ fa ñeneen mais li ma wax léegi yow moom nga wax. waaw sànq dama ne la ñoom la ñuy xaar pour insécurité bi am Sénégal. Euh, dama la cuq ci débat nga tontu ma loolu. lii lañ naan sénégalais moo lay fal ba pare fakkastal la. ñoom ñoom ñi ngi ci li foofu laay waxee bàyyi ma rek. waaw ma rek dama dama nii. Mhm. li ñuy xaar boobu léegi yéex na pour ñu changer ñu nommer consul ak ambassadeurs yi. mais da dégg benn consul buñ commencé gum. nommé ci dëkk yi non defaguñ ko xam nga tax ma wax loolu. parce que ñu ngi soog a que dama bëgg. parce que mhm. dama bëgg. Um, lenn allah taala. Mhm. New York sama grand bi laa bëgg ñu fal ko quoi. Mhm. Ousmane Tounkara. waaw ah, bis buñ ko falulee nag ah. dinañ ma dégg de man moom kenn moom ma parce que man moom adhéré ma ci benn parti. kon yow vrai sénégalais nga. Ah, li nga bëgg da fal nit ki ndax li nga bëgg. bu amul nga daal sànni xeer. non non noonu Malick. xam nga ah. Sonko man fenn la ma neexee. Mm. gouvernement bi ba mu ñëwee ñun dañ fogoon prochain yëpp lay jël teg leen ci ci ci bi. Mm. mais dafay indi ay kàngam. indi ay borom bopp macha allah ñu xam ne kii franchement euh, lu doxal Sénégal la bëgg. ñu xam na mu koy jël. kaay ma jox la exemple. Mhm. mooy euh, Ousmane xanaa. Mhm. fii la dëkk New York. Mhm. xam dëkk bi bu baax. mais du force ñu fal ko ah, xanaa. non du force non du force du force. <coughs> mais man <coughs> euh, sama soutien laay jox ci moom. d'accord loolu nga ci droit moom nga bëgg. Euh, du ma ko nëbba ah, sama xarit la sama grand yaa ngi comprendre mais xoolal xam na dëkk bi yaa ngi dégg. Ah, like comme ni ko gars yi di wax he know on. Mm-hmm. comprendre nga li ma la mm-hmm. loolu laa mën a wax. Mm-hmm. xam nga ku ñu mënta fal fii keneen. ah. nag bu boobaa dinaa rëcc de man kenn moom ma observateur laa de. yaa kon moom Ousmane Tounkara la bëgg euh, ñu fal ko li mu bëgg yàlla na ko yàlla defal ndax man moom fu mu nekk rek laay nekk euh, léegi ñu am yaakaar ni euh, après Diomaye Sonko mën na wuutu. Diomaye Diakhar fay ci pale bi nekk ni mu déggee premier ministre mu déggee ko euh, monsieur le président Ousmane Sonko mu sell mi <laughs> un jour koy xaar yaakaar nga loolu pour ma xaar euh, jamono ah. ni Diomaye nekkee suñu président de la République du Sénégal Macky Sall jaar fii Abdoulaye Wade jaar fii Abdou Diouf Senghor ci sa yaakaar est-ce que jàpp nga ni un jour viendra euh, Ousmane Sonko dégg président de la République Ousmane Sonko mu sell mi amu ci yaakaar Diomaye 2029 defe naa lay jeexal non mooy cinq à quatre ans yi. Diomaye kay bëggul jeexal nguur dafa neex de. xaaral a accord. Mhm. mais gis na élection bu amaatoon Sénégal kay présidentielle. Mhm. xool na fi. Mhm. pro mooy nekk président. non man li nga wax nii at li ma wax du benn dama ne la. ndax am nga yaakaar pro yeewoo pale. amul yaakaar positif. xool ma fi. waaw dama la nii. élection buñ ko tëggaatoon suba. waaw présidentielle. Mhm. Sonko booy nekk président du Sénégal te xoola mhm. instant boobu nag a ah. mhm. laay politique man. Hmm. yaa ngi dégg voilà. sama question bi tontu woo ko de dama ne. Sonko na ko bëggee nee naa la. élection ko tëggoon tey suba Sonko nekk président loolu dafa am wax. Hmm, kon euh, yow man nga jàpp ni kon élection bu fekkee ne day amaat. Sonko mën na joxe candidature am ba pare Jamaay nekk fi loolu est-ce que mën na nekk. incha allahu taala mën na nekk parce que Jamaay tamit dama na wax lenn. lii du bëree lii du arène bi de. noo xoolal benn la roi de arènes da ngay bëri nekk ko bëgg xaw ma lan affaire yooyu. xam nga mais fii beneen affaire la. fii cour des grands la. xam nga que bu élection amee. non Sonko mën na déposer candidature am. Jomaay bii ci boppam. Mhm. maa la ko tey. Mhm. bu élection amaatoon Jomaay du déposer candidature. jomaay. day retiré wu gis nga waaw yow tamit déggoo ma de. gis nga jiital Sonko gis nga gor. Hmm. da ngay gore ba dee wala nga nekk jaam. Hmm. gis nga moo tax gars yi toog naan ay jomaay da doon xeex pale gi kenn xamul. non loolu mosul ah, am ay dañu leen ah, a yar te di yar. Hmm. yaa ngi dégg li mu la des na quelques uns nag yoo xam ne ñu nekk ci plateau yi ils ne font que piailler. comme ay picc. yaa ngi dégg. nan dem toog noppal nit ñi. ñu bàyyi ñii ñu liggéey c'est des jeunes ils sont pour xam nga. redistribuer les cartes refaire les choses mm-hmm. xam nga ba ba pare gis Sénégal dafa soxla gouvernement boo xam ne xool dañuy jël gouvernement bi en main mm-hmm. kuy calli calli ku yaru mm-hmm. ñu encouragé la ku ñu làpp la ayca Malick ñu bëgg a xam politiciens yi euh, pas ay sonkook ñooñu. ndax politiciens yi daf ci am ñoo xamante ne ay politiciens lañ mais dañoo neex tey buñ la doon wax kan moo la gën a neex ci politiciens sénégalais yi ku lay reetaan loo daal koo xam ne day dindi sa stress kan ngay wax. Abdou Bara Dolly. da Abdou Bara Dolly dafa mel ne nag am na benn affaire bu mu def euh, <coughs> semaine bii loolu toj na réew mi mooy ba mu naan bonjour ma la nag lan <laughs> non loolu toj na réew mi moom laa lay xoolal nii pour tegal ko Sénégalais moom moom nga bëgg. waaw Abdou Bara Dolly moom moom fu mu nekk APR wala si Sonko. non nekkul fenn. Hmm. xam nga. mais nag yenn saa lan nga wax ci ñi nga xamante ne nii ñi ngi bëgg a transhumer. Euh, euh, euh, ñoom transhumer amatul Sénégal loolu jeex na. Hmm. <laughs> mais parce que am na député yoo xamante ne fi mu ne lii Sonko wax arrangé wu leen mais dañ ciy d'accord malgré teel a nangu. day yombali dóor ñoom loolu lañ def. non mais ñu ñëw mënuñu ñëw parce que Sonko nee leen ku nekk na nga nekk fi nga nekkoon wax nañ leen ko ba pare et puis pastéfien yi ah am nañu qualité bi am nañu quantité bi am na nañu lépp. ah pour feesal assemblée wala heure bu ñu leen falee ñu def li ñu war a def ñoom soxlawuñu ay ay ay ay paa yi. Mm-hmm. ay paa nga xam ni gars yi ñu ngi fi depuis bul xam. Mm-hmm. ñu nekkoon ci Ablaye Wade tamit xam nga bëgg renaître naan dañuy créer ay parti politique ñoo kañ moo leen di votal kan ban dof ah, nga di leen votal ñooñu xam nga. Mm-hmm. nañ dem toog. xam nga nekk nañu ak Ablaye Wade Ablaye Wade pare ñenn ñi transhumé ak Macky Sall ñëw transhumé wala ak Macky Sall yëpp di wax dañ di dóor ay salaire par fin mois ñu noppi. toog seen ruq xam nga. ñooñu ñoo fi génn tey naan dañuy créer benn coalition wala affaire yooyu pour nous pour xam nga. waaw ah, comment. ayca mi ngi noonu defe naa Malick Naar li mu bëggoon a wax yëpp tey ci politique euh, wax na ko ñu xaaraat leneen luy xew ñu ñëwaat ci man ak moom euh, tey nag fii lañu koy yemalee di leen.